Toujours dans votre acte du jour de ce mercredi 27 mars 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñ jógee foofu dañuy dem foofu ci Genève ginnaaw bi nga xamante nag ki kudul du ku la jeune masseuse Adji bi fi éclaté woon li nga xamanteni moy problème bi doxone ci mars 2021 digënté Ousmane Sonko ak mom mi nga xamanteni moy Adji Sarr di la jeune masseuse ginnaw lool nak bi nga xamanteni régime bi ki di Bassirou Diomaye Faye jël nako ñu bare ñi ngi daal di laam-laame ka Adji Sarr exilé nañ ko yóbbu nañ ko fofu ci Genève ki ko publier dal moy nam ci page Facebook am di Salma Ibrahima Fall bi nga xamanteni mi ngi fofu ci Wal Fadjiri mo publier ben photo en tout cas xamuñu ndax Adji Sarr la mom la wala du mom mais xam nañ ko dal Adji Sarr wàcc na ci Tarnagou li nga xamanteni moy mooy aéroport Genève Sénégal ànd ci ki nga xamante ni mooy Yaye Fatou Diagne foofu daal mu doon li nga xamante ni Adji Sarr dañ ko yóbbu exilé ko foofu muy ay image yoo xamante ni suñ si sukkandikoo ñi ngi gis daal ku mel ni Adji Sarr daal di pousse benn chariot bi nga xamante ni ay valise ñi ngi ci biir ci aéroport bi nga xamante ni moo nekk foofu ci Genève ginnaaw bi ñu defee tuuru li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi ñenn ñi daal ñi ngi affirmer que kii nga xamante ni mooy ancienne masseuse bi dafa débarqué wu foofu ca Suisse ginnaaw loolu nag ñi ngi ñu koy xamal daal àllarba bi dafa mel ni que daal lépp loo xamante ni dafa sukkandiku ci ay réalité rectifié jëm ci destination bi nga xamanteni don na kek ko xamanteni dal muy Adji sar ginnaw bi nga xamanteni mom moy chitu li nga xamanteni moy accusation su ki di Ousmane Sonko ginnaw lolu ñu bare newon nañu foofu mi ngi fofu ci Canada biñ ko avancer nak ci bir lolu dal ben source bo xamanteni dafa joggé Adji sar ginnaw ma kiite xamal ni que dal ke ki di Adji Sarr kiite na li nga xamanteni moy Sénégal il y a quelques jours mais pour se rendre fële nga xamante moy Mauritanie jarle ko ci ben pays frontalier bo xamante tay suñu sukkandikoo ci air yi nga xamante mo jëm ci direction ba jëmale ko ci Canada arrivé na fofu dal muy lundi 25 mars bi nga xamante dal mom lañu japp en tout cas suñu sukkandikoo dal ci yenn suñu source dal ñi ngi déclarer que lepp lo xamante dal mo suxal ci li nga xamante moy raison voyage bi donc en toute discrétion dafa des encore lo xamante ken kenn xamagu ko ginnaw bi ñu demander que kep ko xamante tay da nga lié won jëm ci au pouvoir que ki nga xamanteni moy Bassirou Diomaye Faye bu parti euh, Ousmane Sonko en tout cas ci image bobu dal ñi ñuy won ñi ngi won ni que daal ki di Adji Sarr génnee nañ ko réew mi jamono ji mi ngi Genève en tout cas gis nañ dal ben ndaw so xamanteni mi ngi sol capuche du pouce dal ay valises yu bare tek ko ci kaw chariot jàpp ni dal ki di Adji Sarr ginnaw bu mu éclaté won deal bi nga xamanteni mo indi chute Ousmane Sonko ba yobbu ko ci condamnation à deux ans de prison par corruption à la jeunesse finalement état du Sénégal dal di désisté wu ñu jindi bepp peine Adji Sarr Sénégal exilé en tout cas muy image yoo xamante gis nañ ko comme récemment bi ki nga dafa même ñu mais Mauritanie la dem mais à partir de Mauritanie la jaar di jël volom pour ñi ngi Canada ñi ngi Genève. <laughs>